mbokk internet enquête 221 tey noo ngi fii ci Galère Houpp fas yéene leen présenté benn artiste bu ñuy wax Manel ndooy Manel ndooy nag di def nag ay tableau yu doy waar di yëngu nag si wàllum euh, tableau ndaw rabin ñu bàyyi leen nag moom mu présenté boppam wax ñu nag jaar-jaaram. asalaamaaleykum enquête 221 di leen jaajëfal ak euh, ñi leen di followers yëpp euh, man la Manel Ndoye diplômé major des beaux-arts en 2010. donc euh, li may liggéey nii nekkoon sama thème de mémoire euh, bi may waajal di génne foofu et du coup euh, bi ma génnee ak njariñ bi ma si wax yëpp en tant que recherche si mémoire donc dina am yooyu découvrir juste sama diplôme ma ni lu jara wane la lu gën jara partager la avec ñeneen ñoo xam ne même su dee dañu bokk si lébu gi war nañ mun a gën a comprendre la mooy Ndaw Rabine donc loolu moo ma bàyyi si mbir bi ce qui est intéressant aussi mooy lépp li ma soxla woon ci euh, visuellement euh, d'un projet de pictural Ndaw Rabine daf ma ko offrir donc euh, c'est pour cela d'ailleurs ma continuer sur mon thème de prédilection et di coup la là maintenant on voit euh, au début ça a été un travail sur les costumes accessoires moom ma moo ma gënoon a intéressé en tant que Euh, étudiant mais may génn nag j'ai vu que ndaw Rabine dafa laal ak géej bi parce que jigéen ñi ñu ngi inspiré wu si nappkat bi di sànni ak xëcc mbaal bi et là je sama euh, m'a ça ba ma gën a am benn euh, engagement di wax ci dayoo géej bi nan lañ koy exploiter pollution yi ci jàll nit ñi ñi gën di sànnee seen déchets plastiques yi ci biir donc yooyu yëpp mu nekk euh, ay résultats yi wanewu di figuré wu ci li nga xam ni moom laay def donc voilà. mais est-ce que na say début parce que yenn saa yi dañuy gis ne sa doom suy euh, def artiste dañuy parce que dañuy ne en général sama doom day sànq parce que art ni ñu koy gisee fii ci Sénégal daal gars yi fula nañu ko daal. Hmm. waaw dama si am chance parce que man su ma defee art grâce à Mouhamadou Ndoye dus la parce que ñëwoon na suñu école dafay fresque euh, nekkoon ci kenn ba pare am si fulla boo xam ni wanoon ne wane na ko donc samay parent directement suñu gisee may def la même chose que moom donc ñu woon soucié wu dire voilà si loolu nga xam ne moom laa nar jublu ëllëg donc euh, Bakary Sarr aussi jàpp si lool bi may def sama kii bi moom jotoon na jaar Beaux-Arts expliquer à mes aussi li nga ñu ma nar a fekki foofu donc positivement waa sama famille gisoon nañ ni voilà li mu nar def nii njariñ bu mag la en plus daf ko bëgg donc euh, voilà léegi nag euh, comme tout début ah dañuy ñëw bi may ñëw j'avais que le dessin en mais dessin rek laa xamoon donc bi ma ñëwee Beaux-Arts j'ai découvert ay pinceau peinture après ma ni jàng pour man mooy dem seeti li nga xamul donc loolu moo mu dugal ci peinture ma spécialisé ci en une année après dernière année bi ci laa def mémoire sur la peinture euh, foofu nag doon nañ dafay sculpture installation tout ça moo tax même si sama yenn expo yu mujj yi dañuy gis manel di def la sculpture ay installation mais euh, là dañuy wax ni que voilà. Euh, am na réussite bu baax parce que nit ñi exporté nañ aar bi fu nekk collectionné nañ ko ci pays yu bari et am nañ ci raay yu bëri aussi comme fondation Blaser bi ma jox sama premier biennale en 2012 fii ci Dakar fii si Dakar wa ñu ci une galerie euh, de la place euh, Arte après euh, Iran tam ma dem fa en tant bi may nekk étudiant en 2009 ma am fa lauréat ma nekk lauréat on était douze pays ma représenté woon Sénégal ak Afrique de l'Ouest donc yooyu yëpp mu nekk loo xam ni dafa euh, dafa ànd woon ci sama liggéey bi nga xam ni mu ngi doon euh, intéressé ñeneen ñoo xam ne du sama askan kase du sama réew kase mais amoon na ouverture bu mag mais ñun nag dañu bëggoon def aar euh, boo xam ne day dañ koy booleek euh, une culture donc euh, tey nag Ndaw Rabine euh, en tant que lébu wala li nga xamante moo la meññ ñu bañ ko fàtte moo ma dugal ci loolu ma koy gën di développé di soññ tamit mooy nit ñi nañuy bàyyi xel ci li ñu jógee ñu téye ko bu baax li leen meññ ñu téye ko bu baax loolu rek moo ma gën di neex ci li may def nii mooy ëllëg suba yeneen génération suñu fekkee Euh, lii nii nga xam ni nataal la boo xam day wane seen culture seen aada cosaan ni mu meloon parce que bi ma demee Prado euh, sur Madrid loolu laa fekkoon day aar boo xam ni day raconté woon euh, génération yi nga xam c'était avant nous mais tey peut sama aar dina dem ci médium boobu. donc je je pense bien parce que. man bi may def sama mémoire su ma demee archives national ay deux documents quelque chose bu limite laa fa doon jot pour euh, pour xamoon tuuti ndaw rabine mais bariwul moo tax sama mémoire yëpp dama ko defee sur le terrain di rencontrer ñuy fecc nday réew yi jaraaf yi ñu may raconter eh, ndaw rabine bi may bind di bind ba am sama mémoire donc euh, mais depuis ma gis ni que maa ngi ciy yëngu j'ai vu tout le temps léegi su ma tapé internet je vois ay images yu bëri yoo xam ne si ndaw rabine la des vidéos alors que en 2008 2009 waaye c' était difficile pour moi pour gis sax benn image boo xam ne day wax ci fecc boobu donc tey mu ngi relativiser nit ñi di gën a xam seen aada cosaan di ko gën a partager mais liñ ci raconté nag moo ci gën a am solo parce que tey damay gis magum lébu ma ni ko ndaw rabine mu ngi nekk feccum loxo yi mu ngi inspiré aussi sànni mbaal xëcc mbaal bi mooy bu tànk yi mais dalay wax musuma musa xam loolu pour man fecc la nii rek donc loolu nag pour man euh, travail de musée la mooy tey muy dugg ci euh, édifice yoo xam ne euh, dañuy mun a raconter nit ñi seen aada cosaan comme en Europe dangay xale gis xale yi ñu boole ci seen programme scolaire ay euh, mag ñuy am une culture euh, sur quelque chose même su dul ay prof sax ñëw partager euh, yi nga xam ne ay fecc la foofu ay mbir yoo xam ne mu ngi bokk seen seen aada ak seen cosaan tey nag pour man ndaw rabine wala beneen dance boo xam ne am na ci séeréer yi pël yi war nañ ko mën a boole ci programme scolaire bi su ko dee xale yi gën a xam li li lan mooy seen base la mooy seen racine waa euh, euh, euh, yombul woon même man en tant qu'artiste début corona ba si digg bi yëpp doonuma ma woon gis ni que j'ai du temps damay liggéey mais dama doon liir li nga xam ni moo arrivé si ñun nan la demee nan lañ ko war a dundee donc yomb woon trop parce que en tant que artiste li ñuy def yëpp soxla bi mooy dañu bëgg wane ko ñan leen koy wan large publique parce que su doon loolu si suñu atelier lay yem mais tey avec relâchement bi am peut si lañ profité commencé def ay expo nit ñi commencé dem visiter mais à quelque mois avant nekkoon na leneen donc tu tu restes dans ton atelier di occuper aussi d'autres activités mais doonu woon xalaat di di nekk ci art donc laaloon na fépp ci vente yi ci expo yi tout ça mais tey nag bon euh, voilà on mais ça va na leen aussi nañ gën a inspiré wu gën a defaat yeneen tableau pour euh, yi. oui comme man parce que très contraste man bu njëkk je si lii laa doon gën di liggéey tableau yoo xam ne c'est en la des des lavis. apply tamit ak médium bi may def ndawra bin sensibilisation le moment de communion et donc euh, la composition de mes tableaux ci angle boobu laa ko diriger mais euh, su may gis euh, géej bi gànnaaw yi transparence yi nu muy demee tout le temps daf may inspiré ba nga xam ne euh, sama dernier travaux yi ma def mu constitué en Euh, dafa may joxaat naaxu jën yi euh, nan lañuy demee en bande en mouvement cohésion bi amour bi ñuy am ñoom si biir géej bi moo composé tey samay image bien vrai que on voit l'humain si le sur le rendu en en de loin figuratif nit lañuy gis mais dayoo bi mooy ñoom ñaar seen link dafa yàgg trop sa ñoom pour ñu am benn euh, longévité di dund si seen univers boobu pour man nit tam moo leen mën a indil saafara boobu pour ñu nekk ci donc euh, par le corona wala moment yooyu nga xam ne euh, nekkoon na euh, si ñun tax na tey ma mën a génn sama collection bi nga xam ne yàggoon naa ko xalaat di ko def mais pour moi c'est moment boo xam ne itam jox na ma inspiration bu bari quoi j'en ai profité. Bon, à venir, euh, il y a pas mal d'expos. On va faire bientôt une expo à Saint-Louis, donc euh, avec euh, Abdoula, euh, Abdou Karim Fall bi organisé euh, benn itinéraire euh, boo xam day wane artiste Dakar yeeg yeneen yi ñu retrouver wu sur Saint-Louis au lieu affaire di nekk Dakar kese ñu gis ko faneen voilà après j'avais fait une expo au phare des Mamelles bientôt. Euh, su dee yàlla def na tam ñu fekke ko la biennale lañ nar a def muy événement bi gën a mag si ñun dans dans l' avenir euh, Sasan ñu ngi ñu ngi ñu ngi xaar quoi donc euh, comme bloqué woon nañ suñu rendez-vous yi woon am à l' extérieur en Europe wala faneen si le moment est opportun peut-être un on fera d' autres projets voilà d' quoi incha allah. waaw di remercier Galerie Hop Gal Hop Galerie ak euh, ñëpp ñi nga xam ne dañuy jàpp ci liggéey bi la famille euh, yow tam di la jaajëfal bu baax ak seen boite bi donc euh, di leen féliciter di leen ñaanal aussi benn ouverture bu mag a mag et voilà. Et merci pour l'entretien merci suñu mbokk internet Enquête 221 dañu leen jox rendez-vous nag ci beneen émission ak art plastique.